Fi sunu kër la moo tax ma sawar ñëw fii muy place bërëb boo aussi sunu mambu yalla maiko, may ko muy nitu yàlla ñu xam ko bu baax xam cër bi ko ak daraja bi ko jox moo dem di dara te du ñëw fii ci ñaan ñu ñëw nag fekk la fi tàllal la sunuy loxo pour nga ñaanal ñu ba li ñu jëm yàlla defal ñu ci ndam lu weesu kawe sunu njort jottali ngeen ma ah li mébét yi mébét yi nga xamante ne ak naal yi nga xamante ne moom ngeen namm fii ci Njaasaan te naal yooyu nekk aussi loo xam ne man ci laa bokk parce que wax naa leen ci njaboot gi laa bokk loo leen dugal seen loxo man dama da ngeen ma ci fekk ba li ngeen wax dégg naa ko xëy na jarul ma ciy dellu si mais bu ñu weesoo lii bu soobee yàlla loolu danaa ci taxaw ndax lu ma mën la def naa ko defati ko nit ñi xam nañ ko bu ma ñëwaatee danaa ko def li ngeen ko bëggee ñoom ñi nga xamante ne depuis ñu nekk di def affaire u C50 ngeen xam ne liñ ci jublu mooy jàppale suñu jigéen ñi jàppale suñu rakk yi pour que ñu am xëy ñu mën a liggéey ñu xam seen bopp mënal seen bopp man loolu moo ma tax a jóg làng gii ma dugg nii muy làng gu bees du sama làng bu bu mbir yi demee woon yoon dëgg dëgg dëgg du ma ci dugg soxlawuma ko ndax salaire député même par exemple budget seen budget sax soxlawuma ko maanaam bu ñu jëloon budget assemblée soxlawuma ko bëgg dimbale suñuy mbokk ba coono yi ñuy daj ba yegsi fi ñuy yegsi ñu teggil leen ko pour que ñoom ñu mën a gaaw dab ñu ba weesuñu mm-hmm. loolu mooy mébét bi mm-hmm. tollatu ñu tollatu fuñ ci àdduna fu ñuy soxore wala fu ñuy ñaane ndax sunu borom defal nañu lépp loolu nag lañ bëgg kunta nga ñaanal ñu ba lii ñu jëm le 17 novembre 2024 nga ñaanal sa barke maam yàlla defal ñu ci ndam bañ am député yu bari am majorité à l'Assemblée nationale li ñu doon def ci sunu bopp ci sunu alalu bopp ñu gën ko yokk ba nga xamante ne li ngeen di naal mu waroon jël ay at ñu jël ñu gàttal ko ba ñëpp am jàmm nit ñi xëy am teraanga mënal seen bopp di defal seen bopp di jëriñ seen seen waajur ak seen askan. yoon wi ngay jaar yàlla na ko yàlla leeral. ñu ngi lay ñaanal yal na nga am ndam ci li liggéey baax nga bëggu histoire jàmm ngay woote xeexuloo xuloowuloo li ngay woote mooy jàmm yàlla dina la ko may ndaxte borom xol bu rafet dara jomb ko bi nga fii ñëw danga nga fekk ñoo xam ne seen i maam ak Cheikh seen maam ak maam Cheikh Bou Kounta ñoo daan ànd am na ko fi wax nee na nee na sa jëf dafa jiitu sa jëmm man tey laa la gis waaye yàgg naa laa dégg sëriñ bi li mu wax nga nangu ko ñu gis nga koy jëf ci dëkku diine yi di ko jëf ci nit ñi di leen jàppale te yàlla tax sëriñ bi nag di la dénk yàlla ak yonante ba lu nit di wut na ñaan mu gën ci moom loo ñaan te gënu ci yow boo ko jotee bu ëllëgee dina la wex kon li ngay wut yàlla na gën ci yow te gën ci mbooloo mi la topp loolu mooy ñaanu jullit te dañuy ñaan nga am ko ndax sa taxawaay gis nañ ko xam naa ci yow fukki société ak juróom yoo am ci àddina bi te yaakaar na ëpp na ko war na mat ñaar fukki société ci àddina bi te sëriñ bi njabootam nekk ci àddina bi fu ne rawatina ci biir senegal nga ciy def lu baax mu ngi lay ñaanal yàlla lokk yokk loolu yokk cofeelu nit ñi ci yow li nga bëgg yaa ko xam li ngay wut bëggoonul ci yow yàlla na ko yàlla soppe mu gën ci yow kon sëriñ baa nga lay ñaanal. président teraanga yi mu fi yónnee woon te jëmmi yàlla rekk tax mu ne looloo tax mu génn teeru ko te jëmmi yàlla rekk tax mu ndax njekk yi mu defoon te boobu yàlla rekk tax moo waral moom tam mu génn góor góorgóorlu ba dajale njabootam ñu teeru ko te yàlla rekk tax mu ngi lay dalal bu baax ci sa kër wayjur mu ngi lay dalal ci sa kër maam mu ne mu ngi lay seedeel ni daal njabootu boppam rekk nga àndal njabootu boppam rek nga nekkal loolu dal na xelam ci biir dal na xelam ci biti mu ngi leen di ñaanal yàlla mu ne li mu daan dénkaane tam ci ànd yi rek mu ne loolu rek la leen di dénk mu ne ànd daal ànd te yàlla tax mu ne ànd daal ànd boo xam ni ngor moo ko lal mu ne yaakaar yooyu nga am nag mu ngi ñaan ci barke way juróom wu tedd wi barke maamam ji nga xam ni moo sampoon liggéey bu tedd bii maam alxaaji ahmad baro ak woy juróom yu nga xam ni ñoom ñëpp làq na seen ngërëm ci ngërëm yooyu yal na yàlla defal la lu kawe njort ci lii nga xam ni moom nga jóg di ko wër yal na la yàlla dajaleeg lu gën ci yow ci mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam